kanam maa ngi leen di masawu coono Engagé, on fait l'homme français.

ñu ñëw dajé ak mom motax tay sama mbégte nak liko waral moy de manière spontanée ni ngeen ko gissé la mobilisation la très forte mobilisation des militants de l'APR et du Benno Bokk Yaakaar yi xam ne lay andal ñu ñëw nek des milliers et des milliers de personnes bégal président rassurer ko wan ko ni Tivaouane fa mu nekkon demb ak barki demb and nañu ak le maire Diagne Sy pour que fo bëgg a jëmee réew mi ñu and ci ak yow mu doon nak une satisfaction totale parce que man rek buma ma je ak président dina bëgg sama ma nga ba président de la république ñëwé gis waa Tivaouane ni ñu mobiliser monsieur le maire je vous félicite yéggal ma ci otoom ñu de dugg ci biir ISAB bi kon tay rek euh, nañ ko ci pour mobilisation bi militants yi sonnon nañ ko ci ñu war ñoo bàyyal nag li nga xamante ne nii mooy yóbbalam muy ISEP boo xam ni doomi Tiwaawan yi taxaw sa gannaaw fii lañuy jànge jàngee te fii ak at ñaari at dinañ mën a nekk ay ñoo xamante ne nii dañuy opérationnel am liggéey am seen sutura faj seen i soxla bopp. loolu defe naa ne loolu rek doy na ci kuy yore réew wane na ni bëgg na peuple am kon daal tey jii mbégte mënul weesu mbégte satisfaction mënul weesu satisfaction et bien entendu ñu ngi xaaraat yeneen moment yu mel nii. ci mais aussi ci biir a bi nga xam président de la République changé na ko mu inauguré le centre intégré de valorisation des déchets ou mu ñëw inauguré ñu le réseau d'assainissement des eaux usées gannaaw ba mu fa defee li mu fi def yëpp ci wàllu foiraay ci wàllu ay tali la municipalité mais également la ñu gënal ci Tivaouane muy xadara maam Cheikh Seydi Hadji bi na mu avant 2012 ak ni mu mel tey doy na sëkk ñun ñu président de la République ba faw may wax rek sénégalais yi surtout ndaw yi bu ñu nangu ku réew kenn du jox ku amul expérience réew kenn du ko jox koo xamante ni discours la koy teg déedéet koy teg ci xam-xam ko ci également bëgg